yéen ñi ko jege Barth benn problème Barth mu ngi si état bu normal xam nga comme nu meloon sans problème ba loolu problème am loolu loolu problème am franchement ñun aussi ñu ngi en l'aise amuñ benn problème boobu parce que xamoon nañ fi lañ jëm ak moom. xamoon ngeen ko waaw xamoon nañ ko. moo tax defuñu benn problème xam nit ku siis ak nit ku soxor booy seqeek ñoom rek da xam fu ñu jëm. Mhm. loolu kese la même yéen yi xam ngeen lii c'est pas normal. mais bon. tey Sénégal ñu lu leen mooy mooy mooy li lii rek ñëpp ñëpp ñëpp dañu am lu leen métti. ñëpp lañ doon xeex. waaw. lii ngeen gis nii ñenn ci yéen jàpp na ne injustice parce que am na ñu ni loi la yéen nan ngeen ko gisee xam jaay doole la injustice la wala loi. non jaay doole la ku xam Sonko xam ne Sonko jaay doole kese ak intérêt ak soos la fi nekke loolu la doon doxal. Sonko fi la nekkoon ak ñun ñu ànd ak moom si ngor loolu suñ kanam la loolu du ay sos yàggul mais lépp pour teg ay plan pour yegg si fii mais nag bon Dieu grand quoi. ñenn ci yéen nee loolu tout sauf ça parce que réew mi xam nañ ñu ñu liggéey kon jarul moom moo xam taal réew mi ñun xamuñu loolu. ñoom ñoo xam loolu mais ñun xamuñu loolu ñun jàmm lañu xam ak liggéey loolu moo ñor ci lañu nekk. non bay na man xaw ma ko non non non. déggoo dara ay rumeur ci moom. non man duma wax si moom parce xaw ma ko. moom ku dal la moom moom moom moom andiwul moom andiwul benn benn benn problème ci li nga voilà ci li nga parce que ñenn ñi sànq dama leen jël ñu ne ñu duñ ci bañ dara mm-hmm. dinañ delloo si waat li nga xamante ne sama xarit bi kaay dinañ delloo si waat li nga xamante ne rek moom moo di ëmmat yi fi amoon li nga xamante ne moom moo di coow yi fi amoon waaye moom nag apaisement bi mu apaisement bi mu waxee mm-hmm. moo di dañuy bàyyi lépp ci loxo yàlla parce que tey li baax ci liggéey yoon mm-hmm. ñoom bu ñu wàccee xeex day fee mel ne rek dañoo yàq li nga xamante ne di euh, euh, maire mu di Barthélemy Diaz lan la liggéeyoon waaye aussi ñun bu ñu soñoon tey Barthélemy Diaz wax li mu bëggoon wax parce que boo xoolee sànq bi muy door mi ngi def ay révélation mi ngi naan tey laay wax loo xam ne musuma ko wax sama diggante ak ah, ah, loolu loolu la doon xaar waaw foofu nag bi mu ci la policier yi daj bunt yi mais Barthélemy Diaz mi ngi doon comme mi ngi doon mi ngi doon bëgg a wax kon su ma la déggee ah? su ma la déggee mooy que ni Barth uh-huh. li muy naroon révélé moom mooy problème bi uh-huh. xam nga li mu li mu naroon révélé moom moo naroon indi problème bi moo tax ñu interdit Barth mu def point de presse bi foofu mhm. et puis pourquoi Barth mhm. dégg naa buñ la buñ la buñ la destitué ci sa fonction mhm. amoo droit de faire point de presse bi foofu xam nga loolu man dégg naa ñu mu wax loolu mais lan moo tax Barth choisir ni foofu lay defee point de presse biir mairie de Dakar. sa xam nga boo xoolee Barth day topp action bu mu sës. waaw soo xoolee ñëwu Barth tey ute nag ni Barth daan duggee ci mairie bi. Mhm. boo xoolee dañ ko escorté yemul ci loolu Barthélémy Dias ak mobilisation yi waaye itam ndaw yi nga xamante ne ñoom la yàgg àndal. Mhm. ñoom ñëpp tertu ko ci li nga xamante ne rek ba. Mhm. moom sama xarit la ndeysaan sànq xol bi dafa tooy mais non non kaay taxaw fii doo feeñ doo feeñ. non non doo feeñ fii rek ngay taxaw fii ngay feeñ non doo feeñ taxawal fii sànq sa xol dafa tooy ma gis sama doomu nay daa jël la tey lan nga yëg. moom sama gaañ la. yow zone moo tax zone bi. ayca sama xarit sa xol dafa tooy ma gis sama xarit ndaa kottu la. Mm-hmm. jàmbaar nga tey lan nga yëg. waaw xam nga ñun Barthélémy Dias du du sunu maire. nit ñi foofu la ñuy jaawalee toppee wuñ ko politik dañoo bokk koñ man boo jàddee fii buy xëy day romb sama kër buy wàcc day romb sama kër man ci leneen laa nekkoon par daf ma fekk foofu garaaw 2016 2017 2018 ànduma ak moom man prison lañ ma booleeg Barthélémy Dias boobu xale fa mu ngi purgé penam yàlla teg ma nattu maa ngi rentré le 18 octobre maa ngi génn le 23 février le 22 février ñu def deux jours moo des élection présidentielle 2019 boobu sama grand frère moo yoroon sécurité Sonko ak maa jekkoon si ànd ak Sonko mais xaw ma Sonko man Barthélémy Dias laa xam man su ma génnee Baobab Pikine laay ñibbi dama bàyyi ay autorités yu dëkk biir Pikine ñuy ay PDS maan ma ànd ak façon politicien bu ne Thierno Ndamba laa mujjee àndal si si politique mais ku ma mën a àndal xam nga ne Barthélémy Dias sama nit la Badou toppeewu ma ko politique dañoo bokk koñ boo jàddee fii mooy suma gaala sama doom fii la juddoo fii la dëkk man bu làng gi daaroon mun naa ñibbi Pikine mais sama doom mook Bart ñoo yeewoo ndoo koñ ak samay frère ak samay rak yi jigéen bugguma kuy toroxal gor parce que man Baay Faal ñun fii lañu lépp fek metti woon na torop ci Sonko mu daw fii li wut si wàllu ñun bu ñu fanaanee benn guddi gàll gàll Sonko yàlla ak Barthélémy Dias tax nee naa la ñun xamuñu Sonko. fanaan ngeen benn yoon ñaari yoon ñetti yoon maintes fois. yan mooy moment bi ñu nekkee ci jàmm. non la woon bi ngeen di ñëw di mooy bi ñuy barricadé gàll bi ko Macky Sall di sonal mooy bi mu ñëwee li ñaan Barth wallu ndimbal temps tey la ko ñeme. bi mu yore pouvoir la ñeme Barthélémy mi mais y' a trois ans derrière. bi mu ñàkkee doole Barth moo nekkoon bouclier ñun ñoo ko yobu ñoo yobu Barth mu dem projet mbay mbay Diouf la ñuy wax xaw ma bugguma sax xam turam parce que Ndiaga Diouf ñoo bokk koñ Pikine xaalis boobu ñu leen fay ñu ko lekkee du rees ci ñoom barke Cheikh Ibra Fall loolu suñu yoon nekku si amaam Barth xam naa ne du ko fay mais ay mbokkam coow jar na leen ñu fay ko ngir fay coow mais bu dee Bart kese moo leen gën a wàgg téeméeri junni yoon ñun li ñuy wax nëbbuñu ko bi mu coolee fii lañ ñëw ñun ñoo leen doon gunge guddeeg bëccëg boobu mu ngi nekk maire de Dakar nekk patron wu Antoine Diome ñu bu ñu ku ñu bloqué Bart sel moo doon dugg biir gaale Sonko journaliste yéen da ngeen doon ànd ak ñun dafa am loo xam daf ñu fay fekk du lu histoire di bind wala lu ñuy nettali suñuy doom suñuy doom fekkee nañ ko tamponné nañ ko histoire tamponné waaw tey la ñuy yab Barthélémy Dias parce que ils ont le hmm. ci ginnaaw bay naa ngay dëkk ñu bay naa ñun bay naa dawul suñu yaram. li ma lay li ma lay wax nii li ma wax nii laa la su fekkee li ma dëgg la li may wax ni nëbbu ma ko ngeen wane ko ñëpp sénégalais yëpp gis ko béy naa man daaw da naar suñu dajee maar yow si mbedd su ma la waxee tuddal Barthélémy Dias da ngay puub sa tubay barki Cheikh Ibra Fall yaa may dégg nañ bàyyi loolu kenn du toroxal gor ñun ay Baye Fall lañ kenn mënuñu defal luñ Sëriñ Tuubaa defalul suñu fiis la li ñu def fii ñun la neex de buñ si waaji bàyyi woon suba kenn du yëngal fii mais baobab dafa ngandawul koñ bu ndaw la bokkul ak ay Pikine wala ay Parcelles wala ay Diamaguène baobab ñeenti koñ la boo génnee fii guy ga koñu Bart jardin jeex na ñëpp xamante nañ mm-hmm. bay naa c'est le cadet de nos soucis tey la neex na média yi moo bari gis nga fii ku ñu dégg man c'est la première fois ma wax ci rajo mm-hmm. wala télé parce que ñemew moo ko parce que man du ma wax jàmm sama làmmiñ parce que dëgg laay dund mm-hmm. suñu saa mbar mooy sama sëriñ man wax dëgg amaluma sens def dëgg moomo ma bu dee wax dëgg amaluma sens nga jëf ko moo ma ëppal importance mais billahi bay naa du moom mooy salteel politique bu parti mi jaar li mu liggéey ci àdduna du bay naa moo koy salteel te ma wax leen benn affaire ku bëgg a bar parti mi jaar da téegal sunu ba pare bugguma jaar si kaddu bu ñaaw ku bëgg a toroxal parti mi jaar da ngay jaar sunu dangay ngay sunu waxee nii naar bu waxee. barki sëñ Bamba. baax na baax na bu ñu wax la ñu wax. waaw bu waxee nii. sant yàlla rek. Eh, nañu dal rek waaw waaw dal dal yàlla mooy maye mooy xañe du dëgg yàlla mooy maye mooy xañe du dëgg ñun lii tàmm nañ ko def nañ ko Khalifa Sall def nañ ko Barthélémy Dias tàmm nañ ko mais ñun duñu ñoo xam ne dañuy prôné violence dañuy rafetal rek parce que ñu senegal moo ñu intéressé Sénégal lañ bëgg du dëgg Macky Sall defoon nañu lii du dëgg moom ñëw na Sonko ànd nañ koñ bii ñan nekk tey Sonko yàgg na fi li baat di wax fii lañ ko doon dimbalee di ko suturaal du dëgg tey boo lii amee nag xëy na politique la ku mu met nag xëy na da nga xamul luy politique waaye ñun lii moom tàmm ko miis nañ ko. sëñ bi doo ñëw as lay sori day kii quoi aussi tuuti waaw lii sant suñu borom. yàlla mooy mooy mooy xañe. lii ñun tàmm nañ ko li mu def nii Sonko yàgg na ñëw fii boobu dara ñoo ko doon diriger du dëgg moo ñi ma àndal Abass Fall nekkoon na maire ba xam na maire ba gis nga maire bi li mu demee nii Abass Fall moo teg loolu ah Abass Fall la xam nañ lépp lu mu demee moom xam nañ ñun xam nañ du dëgg moom xam na ma man xam naa ko non pas coow parce que Abass Fall ba mu dul dara lañ ko intégré suñ biir dara Aba Sarr bi ñu koy intégré am na 60 ans. Mhm. du dëgg 60 mhm. ans. après ñu jëlee ko fa est-ce que loolu indi problème bi. non jëlee ko fa mooy non loolu indi problème bi. Mm. jëlee ko fa lox ñu jëlee ko fa. waaw ah, dama lay laaj ba xam est-ce que loolu indi problème bi. Euh, ana Guy Marius Sagna. Mm-hmm. dañ mm-hmm. dañ ko jëlee ñoom ñoom ñoom baat moo leen intégré ci biir mairie bi. dëgg boo Macky Sall boo fi nekkoon. Mm-hmm. pour ñu mairie ba lañ nekk pour ñu ku sax problème la woon pour ñoom ñaar yaa ngi dégg boobu avant Abbas boo fa nekkoon yaa ngi may nag loolu. musu ñu ànd ak Macky arrêté la. ñoom loolu leen di accusé yéen. Macky Sall ba ak Macky ak ñu ñu àndul ak Macky du benn. ñoom ñoom li ñu tuddee ah ñoom moo ànd ak Macky. bon dama lay laaj ba xam yéen da ngeen ànd ak moom parce que yéen. ñoom ak Macky Khalifa Sall musul ànd ak Macky. Mm-hmm. ngay jaawale ak ñun. musul ñoo ànd ak Macky. déedéet ñoo ànd ak Macky Sall. yaa ngi may dégg. Abass Fall ñoo ko intégré woon ñun suñu biir. Mm-hmm. loo ko lu bëri suñu biir. erreur boobu lañ def moo tax mu mu taxaw di imposer boppam. tapet la mag la am na soixante-dix ans kooku. kooku mënul mënul eh, mënul mënul jël maire Dakar bat xale du dëgg Abass ah, fii la daan